ok ah, ah. jërëjëf kilifa ma ne Modou Roqe eggaleel yóbbante bi man la Assane Diouf eggaleel yóbbante bi. ok jërëjëf euh, ma euh, ma ñëw ci euh, Yolande mu tëj Yolande par rapport parce que yow souvent dangay ngay jege loolu loolu détenu ah di sonn ci ñoom loolu aussi ah. Mm-hmm. mais aussi. xam nga xam nga président dafa amoon lu mu wax réduire l' opposition sur la simple expression est ce que réussir ko déjà tas tas tas Pastef tëj la chef de l' opposition jàpp ñenn ñi euh, jiñ yenn affaire ñu bëri ñu ngi ci kaso bi fu mu toll nii. est ce que mhm. loolu réussir ko déjà Yolande. Euh, réussir ko réussir ko parce que suñu demee ba xale yi naan. ndigalu Ousmane Sonko rek la ñuy xaar te bañ ko dalee wax yàgg na. Mm. kon réduire ñu kooku à sa plus simple expression. au contraire moom moo réduiral boppam à sa plus simple expression. Mm-hmm. suñu demee ba xale yi naan li naqari mag yi lu ne neex nañu moom moo réduire boppam à sa plus simple expression. Mm-hmm. ndax ku jiitu kilifa du bàyyi xel ay détails. Mm-hmm. diw bind na ci réseau sociaux reetaan mu jàpp ko tëj ci kilifa gi nga xam ne moo jéete jiite réew. jiite képp kuy sénégalais mais justice justice moo wala. ah yow <laughs> moom ba mu demee ba ne am na ay dossiers yu bëri dama koy répété waat am na dossiers yu bëri yoo xam ne maa ci teg sama concu lii loolu erreur de communication la boo xam ne moom moo ko def te loolu dafa wane ni séparation des pouvoirs amul en tout cas ci magistère am la preuve sax musul am mosul am encore moins ci moom kon su demee ba ne moom dafa réduire <laughs> l'opposition à sa plus simple expression. ba noppi wëlbatiku di interdire ay manifestation c'est parce que dafa ragal ndax tey euh, manifestation yi ñu ñuy bañal ci biir réew mi ña nekk bitim réew ñu ngi koy def mhm. di marché pour le départ de Macky Sall ñu ngi koy def mhm. keroog def nañ ko ba Maison Blanche te terewuñ leen ko muy wone foofu démocratie bi fa am mhm. par rapport ak ñun waa France chaque samedi dañuy def manifestation ba nii may waxee yow te mosuñu leen interdiral benn au contraire dañ leen di encadrer ngir ñu def seen seen droit boobu te pourtant dëkk boobu du seen réew mhm, ñun ñu nekk suñu réew fii lañ juddoo yaroo fi màgge fi saa yoo soo limee say cinq maam ci ginnaaw daanaka fii la ñu juddoo am fi cër lool ñu bëgg la tere exercer say droit kon est ñun ci ban réew la ñu nekk moom la ma sëñ Mara doon wax léegi naan comme quoi que indépendance amaguñ ko ah amuñu ko ba léegi amuñu ko ba léegi te amoon nañ yaakaar ci génération bii fi ne ñu mën ko fi amee parce que soo demee ba consommer local ñu koy gën a farataal dem ba nit ñi di wax patriotisme ñaata at ñu ngi fi ñu ngi doog a dégg baatum patriotisme mooy bëgg sa patrie li ñuy def nii di ci sonn tey ku mel ni Assane nee na jàpp nañ ko tëj waaye taxul mu teggi tànka xam nga ni kon kooku xeex gi muy xeex defu ko woon pour les sénégalais ndax su ko defoon ngir les sénégalais du toog fii tey ci plateau bi di waxtaan ak yow ndax nee dégg na sax say kàddu wallaay ah? mais da koo def pour le Sénégal xam ni Sénégal jar na ko xam ni suñuy doom mérité mérité woon nañu ñun lu ñu amoon parce que ñun dañoo màggee ci ambiance bu paisible ma màggee ci dund gu neex dara cheeru toon dañ doon dékki añ teg ci njoganiku mhm. ban kër moo fi njoganal amatul mhm. xale boo ko wax xamatu ko réer amatul soo ko lijjantewul dëkk bi dafa gën a métti. kii ñu ne emploi des jeunes. xëyu ndaw ñi man dama ne xanaa xëyu ndaw ñi da koo jaawaleeg tëjum ndaw ñi. Hmm. xëyum ndaw ji kan moo fi xëy. gaa ñi amatuñu liggéey. Hmm. ñi nga xam ne nag dañoo dañ leen a jàpp sànq bi may toog ak yow fii dafa am ku ma ci woo. Hmm. kooku détenu la woon mais dañ koo liberee récemment. biñ ko libéré dañ koo takkal bracelet xam nga bracelet yi dañ la naan waroo dépassé zo waroo dépassé zone bi. mooy fii nga mën a yem. kooku da doon liggéey yor njabootam mi ngi tudd Aziz doon liggéeyee Sindia. Mhm. libéré nañ ko yaa deux mois de sela ba léegi liggéeyul ndax nee nañ ko waroo dépasser Dakar mu yor njaboot tey ñiñ fi tëj ñëpp ku ci nekk mi ngi yoroon liggéeyam doon liggéey yi mhm. mën a dimbale jabootam yow nga walbati wëlbatiku dugal ñooñu ci chômage famille yooyu nekkoon seen ndodd tamit nga privé leen de ki nga xam ne moom moo leen doon indil seen gagne-pain mhm. ci koo xam ne nee nga yow da nga ñëw ngir jëriñ askan wi ki nga xam ne yow yaay moom dafa ne la père de la nation waaye suñ ko tegee ci saa yi rek mhm. moom moo fi jiitu ndax moom la ñu jiital ci saa yi kon moom mooy suñu pap dañoo war a toog am lu ñu métti ñëw ba ci président ne ko lii dañoo métti doxaleel nii soxla nañu xëy soxla nañ lii waaye mu wëlbatiku du ñu tëj pour la eh, Yolande man sëñ Mountakha laay woowee le père de la nation moom laa lay wax nii dama ne maanaam ci saa yi moom laa lay expliquer saa yi rek man mi mooy sama père de la nation ndax ku ma xool ndax ku ma xool xam ni ma mel ci sëñ Mountakha waaye nag su ñu demee ba ne xam nga tey ci yoon ci yoon moom mi ñu jiit xam nga tey dañ doon ne euh, le président Ablaye Wade moom mooy maamu dëkk bi maam la woon ndax dafa amoon yërmande ci askanam waaye yërmande googu ndax mu ngi ci suñu président bi man duma ko ñaan mosuma koo ñaan tout le temps ci exigence laay toog parce que c'est notre droit man du ma quémander liberté mm-hmm. bëgguma kuy quémander liberté su fekkoon loo xam ne moo ko moom suñu neexee ñaan ko waaye ndem moomuñu ko ñun ñi ñoo ko moom ñu mm-hmm. dénkoon ko ko bëgg koo jëlaat duñ ko ko ñaan waaye dañ koy exiger te loolu du ñàkk taalibe du du du du du maanaam dañoo réew wala leen mm-hmm. waaye c'est notre droit le plus absolu amaana waxum mm, xalaatuma ko ñaan ci njëkk amaana ndaw ñi seen wax dafa xaw a dëgër et c'est tout à fait normal parce que fougue de waaye ku ñu xam dëgg xam ni ñàkkuñu taalibe ku ñu xam dëgg xam ni reewuñu waaye nag lu ñu lu ñu yellool ñun moom la ñuy exiger président bi pour mu jox ñu ko. jërëjëf jërëjëf mais grève de la faim bi sañu ma cee ñàkk wax non du ma ko ñaan. grève de la faim bi sañu ma cee ñàkk wax ndax samay soxna Batoor duma ko ko ñaan. waaye grève de la faim bi tamit sànq da ngeen wax ba ne Ousmane Sonko dafa war a bàyyi. sànq kilifa nag mi ngi tàggatoo yaa ngi tàggatoo maanaam nit kiy xeex xam nga ñun ñii di xeex ci biti ñun lu ñuy xaar ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ñoo nekk suñuy wet mooy ñu bañ ñoo ne baleen mhm. ndax nag xeex ci la bokk mënu mhm. cee ñàkk waaye tamit ka nga xam ne dañ koo privé de toutes ses libertés ne ci kaso bi gis ni lii rek laa mën a xeexee ngelawaay yi mhm. buñ ko ne na ba xeex bi ndax moom la mu yëg ci xolom ak la muy dund ba waral ko ba waral muy xeex moom moo ko yëg moom moo ko xam Ousmane Sonko li muy def résistance la te képp ku dugg ci Google xool grève de la faim xam ni yàgg na am ay nit ña nga xam ne noonu la ñuy résister te ñu nekk kaso mhm. ku ci mel ni Ousmane Sarr xam nga tey dañuy lim ku ci mel ni Hannibal Djim sonn na lool ku ci mel ni Cheikh Bara sonn na mhm. ñu ngi réanimation mhm. waaye am na ña nga xam ne tey ñu ngi rëbës à savoir Ousmane Sarr nit dof Diop Taïf ak euh, euh, Fadilou kayta ba léegi ñu ngi grève de la faim li ciy xeeñ sax daan neex ba tey dañ leen a doon perfuser perfuser ngir ñu mën koo arrêté yii bu ñu bu ñu rombee màggal gi li ciy xeeñ neexul de man nag hmm. waxuma saayir bi hmm. waaw hmm, li ciy xeeñ ñene rëbës sonn nañu te kenn waxul seeni wax ndax bëgg nañu ñu évacuer leen te ba tey ñu ngi fa maanaam ñoom ñu di détenu yi ñu ngi xeex à leur manière ndéem ñun bon ñun ñu ngi xeex parce que ku ci nekk xeex stratégie la mooy tey li ñuy def nii solution bi aussi duñu waxtaanee ko aussi. lii solu solution la bokk ndax ñu ngi koy waxtaanee ndax xeex la. Mhm. de se nourrir avec leur nourriture. Mhm. et de boire leur eau. Mhm. maanaam seen lekk la bañ a lekk. ak seen ndox ñoom. bëri comprendre te am na ci et c'est un droit le plus absolu et le plus terre à terre parce que sawaay man. ko wóolootu demal euh, demal ci ñuy wujjee. ba xam ndax benn wujj dina xëy may wujj wa parfum mu koy tuuroo danaan poson la bu ma koy tuuroo ji faatu fa yàllaaw wala